salaamaaleykum waa Sénégal man la capitaine Touré bu nekkoon officier adjoint section de recherche bu gendarmerie de Colobane et ce matin gis ngeen ne dama posté benn message si sama sama Facebook di wax ne que dama démissionné parce que j'étais suivi par des personnes dont j'ignorais la vraie intention et intention effectivement c'est c'est vrai à l'heure ou je vous parle à Touba et je me sens en sécurité et dans mes déclarations également je demandais la démission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 loolu ñun ñoo ko moom boo leen ko yàqee Macky Sall dem bàyyi ñu fi ñun ñooy sonnaat encore defaraat ko kon maa ngi ñaan waa Sénégal ñu dal ngeen bàyyi li ngeen def surtout yàq bi bàyyi leen ko te manifestation yi bàyyi leen ko lundi mardi mercredi jeudi vendredi bu kenn manifester attendez le vendredi plutôt à 15 heures man dinaa jóge Touba ñëw ba ndakaar manifester avec vous je vais au, au commandant de la gendarmerie de m'envoyer une escorte ici à Touba